franchement seet naa ko seet mais xam naa ni suñu diggante ñun ñaar amul benn avenir li gën mooy mu wut ay seede may la sa baat nga commencé waat dund bu bees ma jàppale la ci jàppale la bu baax lu bëgg ci kaw suuf ma taxaw ci dimbali la si ci sama doole mais xam naa ne ñun ñaar dootuñu mën a ànd man xalaatuma woon ne yëpp yëpp xaar ma ko damaa jaxasoo torop torop parce que xamoo ni man yëpp dund naa ko fi instant bi je suis confuse soo ko ma toog xalaataat bu baax xam nga laa def yàlla suuf si ma ko. du ni da def dara yàlla mais xëy na dafa nekk ni sa destin la lu ñu bindoon ci sa jëla lu waroon am ci sa dund la te ku ma waxoon ni bés. ñu dem ba toog nga muuru di jàpp di julli di lal siyaada di yore kurus di julli di ñaan duma ko woon mës a gëm xanaa ma teg ci sama bët lan laa avant dinaa la woo léegi. incha allah loolu soxla rek dinaa taxaw pour jàppale léegi. incha allah.